conseil constitutionnel jëlee ndogal daal di niilal ndogal mi di njiitu réew Macky Sall jëloon abrogé décret ma mu jëloon mi nga xam ne moo convoqué électeurs yi ci ñaari fukki fan ak juróom ci weeru février. ba tey dafa mel ni rek si réewum Sénégal dafa nekk en course contre la montre ñi ci ëpp nag ci ku jëga bëgg ñu amal présidentielle ba. fii ak ñaari fan ci weeru avril mu nekk na pak diir bu gàtt. mooy nag mun nañu ko def bu buñ sukkandiku ci Mamadou Lamine Diallo. ne conseil constitutionnel moom kese mooy kuréel boo xam ne am na sañ-sañ dogal ci mbirum élection te kenn waru tey teg pat kon nag moom moo war a valider datu élection mu am nag ñoo xam ne jàpp nañ ne bu weesoo ñaari fukki fan ak juróom ci weeru février nga xam ne fa la ñu waroon amal présidentielle bile beneen i processus électoral muy tàmbali te sax mën na am ñu am yeneen i candidat waaye nag buñ sukkandikoo ci Mamadou Lamine Diallo conseil constitutionnel wax na ci ba pare. mais yaakaar naa ne daanu nañu ndaxte tey conseil constitutionnel génnewaat na beneen liste liste boobu la. Mamadou Lamine Diallo di xam la ne buñ ko falee dina xoolaat yenn contrat yi bokk na ci accord yi am ci wàllu napp gi. nee nañ dès le 3 avril ñun suñu yàlla dénkee réew mi dinañ jël ay matukaay yoo xam ne ñuy napp yaboo yi c'est terminé keesu yaboo yi 40 000 francs kenn mënu ko xalaat fii ci Sénégal c'est pas normal 500 francs la jógee dem 40 leader bu tekki daal nay rafetlu libération yu ñuy woowee détenu politique fan yile waaye nag nee na itam bëgg na Bassirou Diomaye Faye nekk sax candidat à la présidentielle ak kii di leader am Ousmane Sonko itam ñu boole leen ci ngir gën a passif